mbooleem ponk yi jëm ci organisation màggal Serigne Massamba Mbacké càmbar nañ ko ci ndajeem CRD bi nga xam ne moom lañ doon amal ci njaareem gouverneur bi Mamadou Moustapha Ndaw di ñëwaat ci ponk yi nga xam ne moo ci gën a fës. xam nañ ne fa ñuy defee bërëb ba ñuy defee màggal gi bërëb bu bees la sànc la ba tey waaw mu am ñaar ñetteelu màggal mais sànc la ba tey donc la mu laaj bëri na li mu laaj si wàllu courant bëri na la fa nekk foog ñu yeesalaat ko. mais tamit foog ñu yokk ko mu gën a yaatu si dëkk bi ni dëkk bi di màggee euh, noté nañ ko bu baax incha allah nañ ko taxaw ak Sénélec pour que mu mën ko remplir noonu tamit si groupe électrogène bi nga wax moom tamit noonu la surtout pour wàllu cérémonie bi foo ñu utal ko groupe boo xam ne bu amee paan bu ñu bettee te xamoo fa la paan di bettee nga mën a see am moyen de secours mbirum machine la kenn xamul fa muy yàqu li ngeen wax tamit si yoon yoon wi tam noonu la rek daanaka mooy sànc bu bees bi fa mu am yoon bu fa jëm waaw donc en daa ko ñu koy goudronné euh, ñuy defaraat piste bi xam ne moo fa nekk tam noté nañ bu baax dañ ko wax ak waa Ageroute pour ñu mën ko defaraat balaa piste bi noonu tam si wàllu ndox euh, forage amu fa kaakaar amoo forage dama ko fàtte woon waaye moom hmm. ñu sàkku la ñu def fa ndox mi mën a voilà ndox mi mën a doy voilà en attendant nag fooy ut ay yeneen moyens yoo xam ne dinañ palier mooy ñeenti citernes yi ngeen wax ak euh, ñaar fukki bâche yi itam hmm, hmm. citernes moom mi ngi Touba ñaar fukki bâche itam ñu leen si xool ak waa ONAS ñu ko mën a amee indil leen. comité d'organisation Magal Serigne Massamba bi di fësal ak mbégteem te di rafet njort ne engagement yi nga xam ne chef de service yi jël nañ ko daañu ko respecté. yeneen yi ci des yi sàkku yépp itam nag lu yitteel la yoo xam ne mënul ñàkk kon nu leen sant ci engagement yi ngeen fi jël di sant préfet moom it ak sous préfet ci engagement yi ñuy jël pour lu ñu def évaluation xool liñ ci def ak li ci manqué commune itam na mu ko daa defe mu defe ko noonu am na nu mu defoon daaw noo xam ne su fekkee dem na ba xam ne vidas yi mënul am bu defee noonu it ñooy yem loolu moom xam na ko sañ Baara mi ko mi ko seqaloon xam nañ ko ñu defe ko noonu waaye lu ci mënul ñàkk daal ñu fexe ba dimbale nu ci te wóor nañu ne am nañ pësteef boobu am nañ taxawaay boobu am nañ yenn jooju itam màggal Serigne Massamba Mbacke di rakk ci Serigne Touba ñu ngi ko war a amal ren ji le 3 mai. war a dëppoog ci weeru olof ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci Chaabaan ca Daarul Karim ñu ciy màggal nag bés bi nga xam ne ci la gane woon àddina.